assalaamu ngir uh, dimbale seen bopp waaye dimbale itam mboolem jullit yi nga xam ne ñoo nekk ci tund wi yépp ndax uh, sunu borom subhanahu dafa farataal ci mboolem jullit yoo xam ne duñoo nekk ci barab boo xam ne juma war na faa am te barab boo xam ne la fa dëkk sax fa dàkk lu néew néew mat nañ fukki mukallaf ak ñaar fukki mukallaf ak ñaar te mooy fukki góor yoo xam ne kenn ku ci nekk am nga lu fukki at ak juróom-ñett jëm kaw ba noppi ànd ak sam xel ñooñu fu ñu nekkee ci barab bu fekkee ne seen kattan ak seen man-man may na leen ñu taxawal fa lu mel nii muy néegub yàlla dafay nekk farata ci ñoom ñu taxawal ko fa waaye buñ ko taxawalee itam ajjuma ju nekk te ñu daje fa def lu mel ni lii ñu def tey mu mel ni nag loolu buñ ko waxee dafay ëmbaale mboolem dëkk yi nga xam ne ñoo wër dëkk bi yépp tey te yàlla dogal jumaa jël muy dëkk yi nga xam ne yépp ñoo ko wër te jumaa amu ko ñooñu ñépp tey faratala ci ñoom bu bisub àjjuma jotee lépp luñ jàppan ñu bàyyi ko te ñëw julli si yaakaar naa ne dëkk yi nga xam ne ñoo wër dëkk bii te jumaa amu fii amu ci benn boo xam ne digganteem ak dëkk bi romb na juróom benn kilomètre bu boobaa nag kon dafay nekk euh, farata ci dëkk yooyu yëpp nga xam ne seen diggante ak barab bii maanaam euh, ëpput loolu te amuñu lenn ngànt loo xam ne lu mën a tee ñu ñëw boobaa dafay dekk farata ci ñoom ñu ñëw julli képp koo xam ne nag farata jooju tey sàggane nga ko ba tegale lu mat ñetti ajjuma yoo xam ne amuloo benn ngànt lu dul rekk xëy na maanaa war a dem ca sa yittey bopp ak say soxla waaye du lenn ngant loo xam ne ak wéradi gu la dal ci saw yaram la ba mënoo ñëw walla ngant lu mel noonu loo xam ne tënk na la waaye ngant la du dem joxi sa soxlay bopp walla sa yittey bopp bu boobaa ñetti ajjuma soo ko boolee yoo xam ne téewoo yonent bi yàlla yónni ci nun nee na dagg nañ sa buum sa diggante ak sa borom kon ñu xam ne kon loola lu doy waar la kon nag euh, waxtu woo xamee ne si accident di ko sunu borom subhanahu waxe ci saar wi nga xam ne moom la Cheikh Mouhamadul Moustapha ubbee muy suratul jumaa mooy waxtu woo xamee ne dégg ngeen ak noddu ci bisu ajjuma lépp lu waaye doon def ci ay activité da doon jaay dafa nekkan ci ay toolam di bay dafa nekkan ci këram di sàkket wala muy def benn liggéeyu kër wala bépp liggéey bu mën a doon daal ci ab yëngutu bu déggee allahu akbar muy noddug bisub ajjuma lum jàppan na ko bàyyi te ñëw joxe ñaari rakkay sunu borom yooyu su noppee nag delluwaat ca la mu nekkan Cheikh El Khadim wax na ci loolu am solo loo xam ne manta bàyyi xel bu baax mooy man saxalat u salaatu an il ashiyaai intafaa bis salaati wa bil ashiya waaye man saxalat ul ashiyaau an il salaati fala yantafiu bis salaati wala bil ashiya nee na képp koo xam ne waxtu julli aksi na fekkan la ci ay yitte wala liggéey booy def moo xam koo koy mën a defal nag sa bopp nga koy defal wala sa jur wala même sa sëriñu sa seexul murabbi muy sëb sëriñ waaye bi yàlla wootee nag nga xam ne kat allahu akbar li muy tekki mooy wuy woote bi yàlla nag moo gën a màgg lu mën a doon moo gën a màgg liggéeyal sa bopp moo gën a màgg liggéeyal sa jur moo gën a màgg liggéeyal sëb sëriñ nee na nga xam loola tax nga bàyyi yooyu yëpp dem wuy ji woote bi yàlla ba ba noppi doog a delluwaat ca liggéey yooyee nga doon def seexul xadim nee na lépp loo xam ne suru borom diggee na ko ci jaamu yàlla googu ci ab yool ak tuyaaba dana la ko defal waaye la nga bàyyi woon ngir wormaat julli itam boo ca delluwaatee la nga ca doon sàkku moo xam ngërëmal yàlla la bu dee sëb sëriñ la woon wala sa jur wala njariñul àdduna bu doon liggéey booy defal sa bopp sunu borom mi koy joxee nee na sëriñ tubaa nee na dana la ko jox waaye su fekkee safaan ba nga def nag nekk ca liggéey sa liggéey bopp boobee wala liggéey sa wayjur wala liggéey sa sëb sëriñ wan gannaaw liggéeyub yàlla boobee Cheikhul Khadim nee na ba liggéey ba jàll nga doog a dem di julli bu fekkee ne ci julli julli dug julli ajjuma bu dee julli ajjuma moom faat na la mënatoo koo dab waaye même bu dee ci julli farata yii nga xam ne xëy na man nga koo dabit Cheikhul Khadim ne boo ko dabee itam la la cay yàlla digge ci tuyaab moom du la ko jox te boo delloowaatee ca loolee la teewoon a julli itam moo xam lu mu mën a doon ngërëmal yàlla nga ci doon wut bu dee sa way jur nga ko doon defal wala sa sëriñ walla sa njariñul àdduna nga ci doon wut Cheikhul Khadim nee na yaar yooyu dara yàlla du la ko ca fay ndax yàlla ni moo koy moo koy joxe te njagam da ngaa sàggane nag mbirum boppam ngir sa mbirum bopp wala mbirum keneen ku mën a doon dana la bàyyee ak kooka te kooka nag nee na amulu pay mënta fay yàlla rek mooy fay te nee na bu baa dana téye loxoom nee na mu waxaat ci ilhaamu ilhaamu salaam ne aw laa tantafi on muy bu doy bu dee njariñul adduna loo doon sakku nee na ba tax nga ne ah man kat naa àggale lii e wala naa continuer ci lii bu ma noppee fay nee na boo ca jotee it ca loolee nga doon sàkku Sëriñ Tuubaa nee na dana ko def muy muurum kaneen mu ne kon yàqu-yàqu yu bari yuy dal liggéeykat yi ci seenub liggéey la leen ko yóbbee mooy sàggane waxtu yàlla nekk ci ab liggéey ba waxtu yàlla agsi nga continuer ca liggéey ba ba noppi ca loola doog a fay nee na bu boobaa même bu la joxee loolee nga doon sàkku bu doon looloon sàkku ci wàllu àdduna it ba nga defee ne jariñoo ko ca des nee na ñu teg ci ab diir rek mu wàcce ci yow ay musiba wala ay yàqu-yàqu ak i gàllankoor ci sab liggéey ba doo ko jariñoo loolu nag kon sëriñ tubaa la ñuy déglu mooy sunub sëriñ moom lañu yaakaar ay ndigalam dong la ñuy déglu ku mën a doon ku rek danoo jaarale suñu diggante ak sëriñ tubaa ak yow Cheikh al ma bindal boppam lii kon nag ñu góor góorlu bu baax a baax xam ne waxtu julli yàggut waxtu ajjuma yàggut ñaar rakk la tey it bàyyi ko bis bi bi ñëwee aju euh, euh, semaine bi yëpp dala koo may ngay xëy ci say soxla toog fa fa kër boo mënta am gàntul dem ci jàkka ci sax julee sa kër kon nag benn bis bi nga xam ne moom la la moom la la jox ci ajjuma ji ci ci semaine bi mun mel ni asaka la joo xam ne da ñëw defal ko ñaari rak ak képp delluwaat sa liggéey wax dëgg yàlla loolu nag ci ku la may juróom-ñaari fan ah juróom benni fan juróom ñaareel ba wala juróom benni fa juróom ñaari fan juróom ñetteel ba nga war a ñëw fii rek jox ko asaka loolu wax dëgg yàlla te kàttan gi nga am ak man-man bi lépp moo la ko may loola war nga caa taxaw kon nag ngeen góorgóorlu ci loolu yéen waa tund wi yëpp xam ne tey jumaa ji du jumaay barab bii rek la waaye jumaay mboolem ñi dëkk ci tund wi te seen diggante ak jumaa ji gën leen a jege yeneen dëkk yeneen yi nga xam ne am nañ ay jumaa te wër dëkk bii képp koo xam ne waxtu julli jumaa agsi na te nga gis ne fii moo la gën a jege xamal ne fii mooy sa jumaa tey léegi loo jàppan nga bàyyi ko ñëw julli si te boo ñëwee itam yaakaar naa ki doon waxtaan jàpp naa ne xëy na jaar na ci eh, ñu bàyyi xel tegginu jumaa bu baax a baax nag xam ne boo agsee teggini juma mooy nga def ak euh, tahiyatul masjidi muy julli ñaar rakka li ci des nga toog nga ba sa kurus xam ne ci néegub yàlla nga nekk xam ne comme ñi nga jaarale sa diggante ak sa borom sax muy kilifay diine koo ci dugg këram teggin ya ngay yor ci bunt ba ngay sumi say dàll di dox ndànk boo àggee da ngay sukk lem say tànk booy wax sax ndànk ngay wax ndax dangaa wax ne yaa ngi ci kër sa seexul murabbi kon nag ka bind sa seexul murabbi bind la nag am néegam nga nekk mu yàlla jàkkaarloo ak moom kon teggin yooyu mën a jox doomu aadama ju mën a doon june teggiin yi ngay jox sunu borom subhanahu boo duggee ci ab néegam moo war a ëpp lépp amul kobasaate amul waxtaan amul lenn boo duggee ci néegub yàlla xamal na ci néegub yàlla nga nekk ànd ak ko bu yar ci say wax ak say jëf ak sa comportement xam ne boo fi xësee dugg amoo lenn loo war a tee defati lu may nekk en contact direct ak sa borom subhanahu wa taala moo xam yor sa kurus di def salaatu ala nabi walaay istixfaar walaay askar wala nga yor sa téerab alquran di jàng alquran lii nga fi war a nekke ba imaam ji ñëw bi imaam ji xasee ñëw itam bay ba kenn wërta yëkkati genn kàddu ku juum sax ba yëkkati kàddu waroo boo ko waxee ne noppi nga noppil yaag moom yére yam ca bàkkaar ba loola lépp nañ ko xàmmee diggante fi imaam dee tàmbali di xutba ba fi muy sëlmale kenn waru fee am lenn looy wax wala looy def lu dul déglu xutba ba loolu mooy li nga xam ne mooy ndax xut ñaari xutba yi dañoo bokk ci teggiini julli gi buñ noppee itam kenn ku ci nekk jaaru na bala ngay dem nga nuyoo ak sa morom saafu ante ak moom ndax alxikma ci julli jumaa loolu daf caa bokk boo gisee jullit mbooloo ci jàkka yi ñu farataal ko mooy bis benn bu nekk ñi dëkk ci biir dëkk bi gisante ñetti yoon saafa ante kenn ku nekk boo génnee laaj sa moroom lum fanaane wala lu mu yendoo mu mën am occasion wax la ko ngeen gën a feddliwaat seenu kóllëre ak rafetal seenu dëkkiin léegi nag bu dee ajjuma la nag ñu ne ah ñi dëkk ci dund yëpp te gisantewuñu woon occasion la ñu daje nag fii saafa ante kenn ku nekk laaj sa morom eh, nu lu mu nekkee ci dëkk ba lu fa xew mbaa mi ngi ci jàmm mu nekk occasion boo xam ne kenn ku nekkit dana ci mën a feddili kóolóoreem digganteem ak ay dëkkandoom yim dëkkal ci tund yi yépp loola kon kenn ku nekk loo yàkkamti yàkkamti na nga profité booy dem ki nga fi dajal ñépp ci jumaa nga joxante ak moom loxo saafu ante ak moom ndax loola day rafetal seen diggante di di feddali seen i couleur muy yoo xam ne kon yu am solo la daal yoo xam ne mooy njariñul euh, juma euh, yooyu lañ koy dundalee ndax euh, jumaa du caa gën tabax ko rek ba rafet waaye lay dundal jumaa mooy la tax sunu borom subhanahu santaane ñu def ko mooy dugg fa di jaamu yàlla ak di delluwaat ci yàlla ak di tàllal suñuy loxo di toroxlu di ko ñaan suñu ba defal suñu borom defal du tawfiq su ko defee loolu mooy li nga xam ne moo ëppan solo ci kaddu yi nga xam ne moom la jot li waaye kenn ku nekk daal xam ne bis bi moom bu ñëwee ah même bis bi bu bis ajjuma jotee e fajar xaree la fi nga jullee fi fajar jullee fi suba amuloo droit jóge fi tukki dem ci beneen dëkk boo xam ne ajjuma amu fa jumaa amu fa maanaam bu bu la fi fajar xasee kii rek bis boobu moom bis bi tënk na la bu fekkee ne fa ngay dem jumaa amu fa ba nga xam ne da nga fa mën a julli jumaa kon faw lislaam dafa bëgg nga toog ba julli jumaa doog a dem bu fekkee mënoo loolu nga jiitu jumaa ji su fekkee nag fa nga jëm nag jumaa am na fa ban boo demee da nga mën a julli jumaa ah da ko mën a def waaye kon it boo demee foofa a nga góorlu ba julli fa jumaa mbokki jullit yi teew fii maa ngi leen di nuyu kenn ku ci nekk nuyóob lislaam di asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu bàyyikoo ci ndigalul suñu jur sëriñ Moustapha Sill mi nga xam ne moo jiite bërëb bi jëm si ci yéen nuyoo boobu nag dañ koy teg ci loxol njaboot ñi nga xam ne ñoo fi nekk tooge fi jataay bi Cheikh Ahmad Bamba ndax Cheikh Mahamadou Muntaxa yàlla na fi yàgg te wér ndawam bu fi teewee kon lépp lu ñuy tàmbali ci moom lañu ko war a tàmbalee waaye njabootu Serigne Touba gi fi teew ci njiitul Cheikh Amadou Badawi Mbacke Serigne Abdoul Ahad Mbacke Gaynde Fatma ñoom ñëpp di ay kilifaam nee mi ngi leen di nuyu di leen sant di leen gërëm kàddu yi nag kàddu cant rek la ak kàddu yi leeral tuuti ci li nga xam ne mooy cosaanu bërëb bii ndax bërëb bii day bërëb boo xam ne maam yi dañ koo sañcoon ngir lenn rek ngir jaamu yàlla kon bu ñu demee ba tey jii ñu ne dañ fiy daloo néegu bu yàlla loolu dafay yàlla dafa yàlla ci ñaar ngir ñaari mbir ci ñaari fànn bu njëkk bi mooy ginnaaw jaamu yàlla rek moo leen taxoon a sàkk bërëb bii ngir beru fi kon bu ñu demee ba fi san sañ ci néegub yàlla kon loolu lu jaadu la waaye ñoom jamuñ woon rek ci jaamu yàlla dañoo yemoon ci di xamle yàlla moo waral taalu jàng wi ñu fi taaloon boobu ba léegi ñi fi ñi fi jaar ci diggante bi ak ñi fi nekk ba nëgëni liñ ci man ñu ko ciy def ba tey jii yàlla loolu mu jëm kanam ah, demee nag ba fiy daloo juma nee na dafa jàpp ne lenn rek moo ko waral mooy yéene ju sell ya nga xam ne ñi ci bërëb bi moom lañ ko sanc woon ndax ay concours de circonstances yu baree bari jaar na fi yu waroon na mën a tax tey xaj na fii doon ab gent ndax bëri na dëkk yoo xam ne subiruñ lu toll nii lii dëkk bii subir ci ay tentation yoo xam ne waroon naa mën a tax mu gent te yooyu raaf nañ kenn tuddatu leen kon tey xaj na ginnaaw dogalub suñu borom seen nangu seenu ñaan ak sel cellaange seen yéene moo war a tey ñu toog fii di fi daloo juma ndax bëri na yu waroon a mën a tax amaana moom sax du fi dëkk tey ji bëri na it yu waroon a mën a tax gannaaw ba mu fi dëkkeet xaj na nëgë ni fekk mu jóge fi ndax tolloon na jamono boo xam ne wéetoon na fi lool ba bëri na ñoo xam ne doon nañ sàkku ci moom ngir sax mu randu ngir dem fu gën a wéetaliku waaye bu weesoo ak dogom dafa jàpp ne dogalu bu yàlla mooy li nga xam ne moo jiitu ak nangu ñaanu suñu wayjur yi nga xam ne maam yi nga xam ne ñoo fi ñoo sañcoon bërëb bi nangu gum nangu moo tax moom xaj na loolu ko fi dee ba nëgë ni waaye nee na sax du ak njàmbaaram wala ak lennam mu ciy sant yàlla bu baax di ci sant yéen ñi nga xam ne tamit yéen ay yoo xam ne lu mu fi mas a wéet rek seetaanu leen ko ndax jamono bu nekk fekk ngeen ko fi ci waxtu wu ne lu mu sumb fekk ngeen ko ci lu mu woote it wuyu si ngeen ko ci mu leen ciy sant cant goo xam ne am na fu mu tàmbalee waaye amul fu mu yem li nga xam ne mooy jumaa jii nag bi nga xamee ne euh, amagutoo nit teewul moom yàgg naa am ci am xelam yàgg am ci xolam waaye xañ na existence réelle nit man koo teg bët ne lii mooy jumaa ji xañ na loolu rek moo desoon te loolu bëri na ñoo xam ne euh, amoon nañ yéene ji maanaam fexe ba loolu sax bokk na ci li war a tax li li waral ba nga xam ne jàkka ji yéex nañ koy def jàkkay tabax ndax yàgg na réew mi dem nañ ba daanaka bokk na ci yi fi yi fi mujj ci jàkka yoo xam ne ay sàkketi seng rek moo ko wër bari bokk yoo xam ne bëgg lu baax ak yéene ju rafet tax ñu bëggoon koo defar waaye moom fekk am na lu mu sémboon ci xolam buñ ko bëggee rek mu ne leen ah am naa lu ma xalaat te bëgguma fay def lenn loo xam ne lu ñuy toj lay doon loolu mooy waraloon yéex a defar gi mu am naal yu bari yu mu ci naaloon yoo xam ne fàttali na ko ci ay barab yu baree bari yu wuute yoo xam ne du jar ñu ciy dellusiwaat waaye bi nga xamee ne dem nañ ba yàlla dogal mu jot am mbokk yoo xam ne daje naak mu nekk seen bëgg-bëgg nekk seen taxawaay ñu am yéene ji xaj na sax bëgguñu ñooñu ñu tudd seen i tur ñoom waaye dafa am jëf yoo xam ne su ko nit defee ba mbooloo daje ñëpp di ay bokk day baax nga junju wax ci la ñàkk bu ko defee loolu xañ na dana tax nit ñi seen xol sedd ñu ñaan te nit ñi bu seen xol seddee ñu ñaan suñ borom day yomb mu nangu te ñoom ak ñaan lañ soxla waaye soxlawuñ sax cant soxlawuñ ngërëm ci niñ ko waxee. ki ci jiitu nag di mbokkam di doomam di sëtam di ab dongaam muy euh, Ibrahima Syll wax dëgg yàlla aw ñaqam mu njëkk a tàbbi ci bërëb bii te mën naa wax ne moo ci mujj te li ci diggante bee bëri na ci loo xam ne ci moom la euh, jaare te man mii di wax mat naa ci seede ndax amu ci benn dërëm boo xam ne bàyyi koo na ci moom bu bu jaarut ci sama loxo dem ci jumaa ji kon mi ngi koy sant cant goo xam ne xañ na sax cant gi moom yittewowu ko waaye mi ngi koy ñaanal di sàkku ci mbooloo mi ñu ñaanal ko waaye loolu lépp bi mu ko tàmbalee it dafa bëri mbokk yoo xam ne yàlla dafa dogal moom ñoom ñoom ak Ibrahima moom muy wax ñooyam ab àtte ci bërëb bii ndax ginnaaw mbokk ginnaaw kóllëre ginnaaw ànd bu yàgg ak ay wayjur ginnaaw jàng guñ fi jànge xañ na liñ def ci ñoom ci ay jikko yu rafet moo tax ñoom it ñu am nekk lii kat suñ sañoon ñu tamit dañ koy def waaye ñu fekk si ci ñoom it ne duñ ci des ginnaaw kenn ku ci nekk dugal ci sa loxo xaj na su ma ko tuddee moom ñoom dana leen yóbbaale ndax ñoom loolu dana leen doy sëkk walif ñuy tudd seen tur ndax kenn ku ko ci def jàpp nañ ne ñëpp nga ko defal parce que ñëpp am yéene ji loolu nag day dem ba ci ñi nga xam ne cant googu amoon nañ yéene tàbbal ci seenu ñàq te jotuñ koo def ñoom ñëpp ñoo ko bokk yàlla na yàlla fay ñëpp yéene yi tabax jumaa joo xam ne tàmbali na ba àgg mel na jumaa mel ci ci jumaa yi daq suñu borom yàlla na ko fay fay yool boobu mboolem ñëpp ñi nga xam ne teew nañ ci jataay bi te bëgg ci te amoo sikk ci ne ñëpp ci bëgg loolu nag li ko waral leen rek la lañ jàpp ne moo waral loolu mooy daara la joo xam ne alxuraan lañ fiy jàngale te alxuraan dafa am lu muy def ci nit loo xam ne lu ci nit xam lu mu néew néew bu alxuraan defee ci moom tuuti ci ab siroom rek fii rek lay mën a mujj mi ngi nuyu bokki fi ñëpp ci jiital sunu waajur wi di sëñ nee na mi ngi ciy jiital waajuram wii toog nag di sëñ Ahmadou Badawi. li ma ci dolli du bari. nee na li mu ciy dolli ci kàddu yi fi dëkk du bari de. ndax ñi ma jiitu. ñi ko jiitu. li ma doon wax ci wàllu diine yëpp wax nañ li ma doon wax ci wàllu diine wax nañ ko li ma doon wax ci wàllu jëm ci bokk yëpp wax nañ li ma wax mu jëm ci bokk it wax nañ ko kon amatuma dara lu ma ci dolli nee na moom kon amatul lu mu ci war a dolli xanaa rek wax ñu fi dégg waaye nee na mi ngi wax mi ngi ñaan nit ñi yi nga xam ne dégg nañ ko fi surtout li sëñ Xaadim doon wax surtout nag kàddu yi sëñ doon wax daa mel ne sama xel la waxee nee na sëñ Xaadim day di wax moo tax moom ma ci dolli dara nee na loolu nag mooy lim la ko nga far ko wax nee na amatul lu mu ci dolli kon mi ngi soññi ñëpp rek. nee na kon daal moom mi ngi soññi ñëpp. ñu xam ne ñu ko fi ngir euh, defuñu fi béréb bi ngir meubal. nee na defuñu fi taax mii de tabax bii defuñu ko ngir mu nekk meubal de. defuñu ko fi ngir di fi daje de waxtaan. nee na defuñu ko it muy jarlaa ci béréb bu ñuy waxtaanee. kon nag si si xaalim leeral doy na sëkk. nee na si xaalim leeral la ko kon barab la bopp. jaamu yàlla rek ko tax a jóg. kon nañ ko fonk bu baax a baax. nee na na ngeen ko bokk fonk bu baax a baax. kon nag moom loolu rek laa bokk tàllal nu ñëpp suñu sëriñ bi ñaanal nu. nee na dafa bëgg nag nu bokk tàllal suñu loxo nu ñëpp sëñ bi ñaanal nu. jërë ngeen jëf waaw. kon jërë ngeen jëf jërëjëf